أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذ بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم bokki jullit yi bokki taalibe yi gannaaw ba nu sante yàlla mi borom mbindeef yi julli ci Moustapha mi gën ci mbindeef yi dellu di jaajëfal Sayxal Xadiim mi raw ci mbindeef yi mbokk yi tey jii di àllarba benn fan si weeru février atum 2023 ñu ngi leen di nuyoo fii si dëkk bu sell bii nga xam ne mooy Poroxaan dëkk boobu nga xam ne bu ñu ko tuddee xel yi du jar ñuy xalam lu bëri ndax ñëpp dañuy dajaloo ca soxna su tedd sa di soxna jaaratullahi Mariama mu mel ne tey jii gis nañu dëkk bi ni mu feesee dell ak mbooloo li fi dajale ñëpp mën nañ ni mooy jëmmi jëmm jooju di soxna jaaratullah mu mel ne koo kii nag di soxna jaara bu ñu gisee ab dëkk ay oto dajaloo ñu ni fan nañu jëm ñu ni dañuy dem ci màggalu seet na soxna xel du dem fenn ci kuddut soxna soow si di soxna jaaratullaa lan moo ko may loolu ku ne xam na ni soxna jaaratullaa booy lim ay maamam ba si juróom-ñaar ñëpp ay gor yu set wi ci lan ngay lim ay maamam ba ci fukk ak ñeent itam ñëpp ay gor yu set wi ci lan naka noonu ngay lim ay maamam ba ci ñaar fukk ak ñeent ay gor yu set wi ci lan waaye ndax loolu moo ñu itteel si moom déedéet li ñu itteel ci jëmm jooji di soxna jaaratullah mooy tedd ngay jikkoom li ñu itteel si jëmm jooji mooy pas-pasam li ñu itteel si jëmm jooji mooy ak dogoom waaye li ñu itteel si jëmm jooji mooy itteem ju kawe ndax ku ne xam na ni lii mu am nekkul ni moom mooy jigéen ji njëkk a liggéey yel islam nekkul ni mooy jigéen ji njëkk def lu baax ndax ku ne xam ne ni lislaam jigéen moo si njëkk a dugg jigéen moo si njëkk tur deret waaye bu ñu ne kañ la ñu war roy xel yëpp dañuy dem ni nañu roy soxna jaaratullah kon loolu li ko ko may mooy itte ju kawe ak pas-pas ak ak dogu moom soxna jaaratullah nag ku ne xam na cofeel gi nga xamante ne bi ne ñëpp am nañ ko ci moom masaloo ci góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ba waral ñëpp di jógee fenn fu nekk ci àdduna bi war wërngal këpp rawatina fépp ci Sénégal itam ngir di ñëw fii ci dëkk bi di Poroxaan di seet si jëmm jooju di soxna jaaratullah mu mel ne ñu ngi wan ginnaaw rawdatu maam jaara daañu dugg ci biir séq ak waxtaan mbokk yi taalibe yi ñu dajaloo yi nga xam ne ñoo ñoom la ñuy dajeel ñu jox ñu seen ay xalaat ci bis bi li waral seenu teewaay ak li nga xamante ni bi ne moo tax ñu ñëw ci bis bu sell bi dañuy ànd ak suñu man daal di dugg ci biir barab bi dugg itam si biir dëkk bi séq waxtaan ñi nga xam ne ñooy mbokki taalibe yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi mu mel ne ñu ngi taxaw ak Serigne Assane Diop mi nga xam ne moo nekkal daayira Moukhaddamatoul ma si mbooleem diaspora bi si àdduna bi yëpp Serigne Assane gis nañu taxawaay bu am solo bi nga xam ne daayira Moukhaddamatoul Khidma am na ko waaye rawatina si màggal gi nga xam ne mooy màggalu ku ne xam na ni taxawaay bu am solo bi Serigne Isaaxa am ci mbooleem bitim réew bi ak daayira Moukhaddamatoul Khidma nga xam ne dafay amal taxawaay bu am solo ci euh, liggéeyub soxna jaara bi Serigne Assane ñu ngi bu baax a baax bàyyi la nga nuyoo ak mbokki téléspectateurs yi bu ko defee dikk ak ñun si taxawaay bu am solo boobu asalaamaaleykum. waaw ah, jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulah sëriñ Habib ah, ñoo ngi lay ziare te leen dalal ah, di sant yàlla bu baax ci teew gi nga xam ne teew nañ ko tey fii ci kanamu Soxna Jaara fii ci barab bi mu dal xel lool nag dolli yaakaar. ndax bërëb bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla na fi yàgg tànd ko wér ginnaaw bi ñu ko siyaaree euh, day wax ne fii Porokhane dafa am si boppam xaasi boppam bu ñu ko waxee mooy euh, Cheikhul Khadim li mu fi diggee fii rek la ko diggee ndax moo wax ne fii ku ne fi jàng mu fekk ko fi te it ku ñëw fekk ko fi yéen na ngeen ci liggéey liggéey bu rëy mooy di yaatal liggéey bi ba àdduna bépp di jot màggal gi tey mën naa ne àdduna bépp dafa mel ne tey ji même ñi teewul sax teew nañ ndax ñun ñoo teewaaleel képp ku teewut waaye ni ñi teewut dara umpalee bi ndax seen yaatal kon yéen yal na leen yàlla fay waa nga am indi nag lu am solo ci liggéey bi ginaaw bi ñu siyaaree waa diaspora euh, jiital mboolem jëwriñi Seexul Xadim yi ak jullit yi ak taaliba yëpp rawatina ci foofu nga ubbee muy Muxaddamaatul Xidma di jumaay Seexul Xadim ji nga xam ne ñoom ñooy taxaw jumaa ji euh, nga indi nag lu am solo ci sunu jëm sunu jëwriñ di euh, l'ambassadeur soxna Jaara muy Serigne Isaaxa moom Cheikh Mamadou Bassir Euh, sëñ Isaaxa moom Cheikh Mamadou Basir euh, doon koo xam ne tudd nga ko ci taxawaayam ci Soxna Jaara taxawaayam ci liggéey ñu mat ci seede nag ndax yàlla dogal na bu jógee ñëw Europe di yaatal liggéeyu Soxna Jaara euh, dañ koy ànd ak moom moom nag liggéey bu mag a mag euh, yaatal na ko ci liggéey bi yaatal na ko ci waaw waaw. jërëjëf euh, Serigne Assane mu mel ne comme ni nga ko waxee rek liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy taxawu si diaspora bi. mu mel ne tey jii nii itam boo ñu den dellusiwaatal ci liggéey boobu naka ngeen koy amale ak naka ngeen koy programmer ba mu doon lu mucc ayib noonu sëñ Assane. waa liggéeyu Soxna Jaara ni koy programmer mooy da koo am dafa am calendrier boo xam ne seex Cheikh Moustapha euh, ibnu Cheikh Mamadou Basir euh, jëwriñu Soxna Jaara moo taxawaloon liggéey boobu ndax euh, Cheikh Moustapha bi mu ñëwee xool ne Soxna Jaara kat day koo xam ne. Euh, moom euh, képp ku dib taalibe boo sañoon am doom ji jigéen tuddee ko soxna jaara euh, tey soo ko tuddee bu fi nekkoon da nga ko koy yóbbul mu yaral la ko jàngalal la ko defal la ci moom yarub diine lislaam ju sell loolee bi ko Cheikh Moustapha xamee ci la xalaat ne kon soxna jaara kenn ku ne xam na fu mu féete woon foo te foofu mooy alxuraan ndax dama koy faral di wax ndax soxna jaara ni seex mun taxaa di waxee naan seexul xaddim muy sëriñ bi bi mu fi ñu koy gis ba bi ñu koy noppee gis ci benn bërëb la ne woon muy diggante sunu borom ak jëwriñam mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag diggante boobu itam kenn ku ne xam ne soxna jaara ku ko ku ko ku nit foofu gis ko bi mu fi nekkee euh, kenn ku ne gis na ni mu taloon ni mu taloon boromam ci ci ci digganteem ak boromam ba ma looloo ko indil jaaratuleehi tur woowu looloo ko joxoon waaye digganteem ak sëriñam nag ak jëwriñam Mamorata Sali kenn ku ne xam na ne liggéey bu sell bi mu liggéey ba laq ngërëmul Mamor Anta Sali suñu borom tànnal Seexul Xadim soxna jaa jaarale ko ci moom kon kooku eh, kenn lay doon ci liggéey bi moom muy soxna jaara mel ne yaatal gi itam ci wàllu bitim réew ndax eh, doon na yomb ci yéen ñi koy taxawee. waaye yaatal gi maanaam yomb gi moom. mooy nit ñi ñoo bëgg maam jaara ba tax muy yomb ndax euh, ku tudd seexul xadim rek da nga tudd soxna jaara euh, yaatal gi nag euh, ci calendrier bi ak ni ma la ko leerale ci nii ko seex mu Moustapha sose ndax seex Moustapha bi mu sos bi mu xamee ne liggéeyal soxna jaara ci ci ci ci bërëb bi mu nekk bërëb boobu wuti fi jëmmam moo tax mu ñëw sëmbu fi sëmbu wu mag bi tey ku dugg fii da nga gis résidence résidence su soxna jaara li dala ci Cheikh Mamadou Moustapha ba ci Cheikh Mamadou Mourtada kenn ku ne am na fi appartement euh, nga ñëw ci daara ju mag ji nga xam ne mooy daara yi maam jaara ji tey jii nga mën a wàññi euh, juróomi téeméeri maam jaara ak juróom fukk yoo xam ne ñu ngi ci daara ji euh, tey daara joo xam ne weer wu ci nekk da lay da ngay xam ne dépense su daara ji rek dana egg ci 18 millions tey boolewul ci nag yeneen yi nga xam ne mooy topp ci daara ci ci fare yi yooyu bi ñu xoolee ne liggéey la bu mag. ba Cheikh Moussa semb yooyu liggéey liggéey yooyu nag euh, mbooloo mi dañ cee wuy si wuy si gi nag euh, moom mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi gën a yokke ci mi ngi gën a yokke ci xalaat yi xalaat yi nga xam ne ñi liggéeyal soxna jaara di jëwriñ yi muy sëriñ Isaaxa mi nga xam moo ne ci bopp liggéey bi moom moo doon génne xalaat yi euh, xalaat yi fi jiitu woon nag di nos bi muy carte yi carte maam jaara yi nga xam ne daayira yi mat nañ 3000 daayira lu toll ci juróom benn eh, ñetti junni daayira yi soxna jaara am nañu daayira yooyu nag bi Cheikh Moustapha xalaatee àllarba yi mboolem Baay Faal maam jaara yi ñuy ñuy taxaw ay addiya di laaj addiya yi soxna jaara eh, carte yi ñu di ko wecceeku yooyu moo yoroon moo yor économie daara ji bi ko sëñ sa taxawalee wut ab délégation yebal leen Europe ñu wër àdduna bi leeral ko Euh, ginnaaw loolu nag ci la sëñ Isaaxa mi nga xam ne moom nga tuddoon waat beneen xalaat boo xam mi ngi jëm ci prénace yaakaar naa loolu ñëpp dégg nañ ko muy li jëm ci dunduk daara ji dunduk daara ji moom bi mu ko bi mu ko waxee moom dafa xalaatoon ne bépp dayre boo xam ne maanaam mun na mun na jël benn maam jaara euh, ci ci ci ci ci ci ci yor ab dundam loola la sëriñ bi xalaat bi mu ko xalaatee daayira yi gàttandu ko noonu ko sëñ Cheikh Mouhamadoul Mountakha di waxee naan sëñ Moustapha daa daa génne xalaat bi rek ñu gàttandu ko waaye xalaatu dunduk daara ji tam bi ko sëñ Isaaxa génnee noonu yi nag lañ ko daal di gàttandoo ba fi mu toll lu ëpp ci daayira yi daayira yi jël nañ maam jaara bu dee Europe sax ñoom 30 euros lañ ko def muy bis bis bis en euro weer wi nekk 30 euros nga xam ne kon léegi day nekk 300. 60 euros mooy nekk maanaam mooy mooy maanaam maanaam 240 mille mooy nekk maanaam at mi ci ci benn maam jaara léegi nag bu dee bu dee bi mu defee noonu mu yaatu ay Europe nag bu ñu waxee Europe ak Amérique ak Asie réew yi àdduna bi yëpp buy si ci ba fii ñuy wax ni biir Sénégal kenn ko na xam ne daayira maam jaara yi niñ toll ñooñu tam ñu ngi ciy wisu ñëpp nag ñëw ak seegut daayira yëpp ak seegut waaye nag ñu ñu gën leen a soññi gën leen a fàttali ñu gën a xam ne tam liggéey la boo xam ne day liggéey bu mag boo xam ne sëñ bi day wax ne waxtu wu ci nekk bu ñu taxawee ñuy fàttali nit ñi daayira yi di fàttali soppee soxna jaare ak ñi bëgg a liggéeyal maam jaara liggéey bu mag bi nga xam moo fi nekk kon nag loolu ñoo ngi koy fàttali daayira yëpp waaw di woo nag képp koo xam ne tamit euh, liggéey kaanu maam jaara euh, nga nga nga xam ne liggéey bu mag bii ñu doon leeral muy dépense yi nga xam moo aju ci daara ji ndax euh, prénance bi looloo ko indi waaw am na leneen lu ci yokkaat muy dëkk yi ñooñu alxuraan euh, ndax seex Moustapha euh, la doon xalaatam lépp junniy maam jaara ne ci daara ji waaw loolu xalaatoon ba moo taxoon euh, sëñ bi Cheikh sëñ Isaaxa yéenay Cheikh Moustapha jooju moo génne xalaat yi ngir bu nit ñi jëlee ay maam jaara kon maam jaara yooyu dana dem ba egg ci junni yooyu mu mu waxoon bu ñu yokk dëkkuwaay yi dëkkuwaay yi mooy. ndax lu mat juróomi téeméeri maam jaara ñu ngi fi ci daara yi ak juróom fukk waaye nag bu bu dëkkuwaay yokkoo loolu mooy tax kon junni maam jaara yooyu sëñ bi bëggoon mu mën a agsi ci daara yi. macha allah Seydina Assane am na nañu mbégte mu mel ne gis nañu yaatal gi leer na nañ ñi yàlla na yàlla dëgëral leen ba ngeen gën a mën a taxawu liggéey boobu am na solo lool lépp day dellusiwaat ci soxna su sell soosu di maam jaara ndax pas-pasam ni ma ko waxee woon léegi ak yitteem ju kawe moo yaatal liggéey bii. kon yàlla na yàlla dëgëral leen mu mel ne liggéey bi am na solo lool jëf jërëjëf Seydina Assane am na nañu mbégte lool ci sa teewaay ci suñu uh, jataay bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax bàyyi la nga tàgg waaw xam naa tàggatoo yi xam naa dañuy dellu si du Modou taxaa uh, sant ko di sant suñu borom uh, ci boole gi nu booleeg jàmbaar jàmbaar ju mel nii ci liggéey bi muy liggéeyal Cheikhul Khadim ñu ànd koog moom di sàkku àdduna bépp ñu ñaanal Cheikh Modou Mountakha ndax daara ji bi ma koy tudd itam génnul xam-xam Euh, daara ji bi ma koy bi ma koy tudd itam génnul liggéeyal lislaam liggéeyal seexul xaddim te seex Moodu taxaa kenn ku ne gis na ak jubloom li mu tal seex Muntaxaa li mu tal lépp mooy liggéeyal seexul xaddim li mu amoon yitte jëpp mooy sëmb bu mag wi nga xam ne seexul xaddim moo ko fi bàyyoon tam desoon ci naal yi mu waxoon ne yitte jooju mooy ay yitteem ba moom la jiital ci liggéeyam ba kenn ku ne gis na liggéey boobu muy université bi nga xam ne mi ngi ci joxe ndigal ñu war koo ubbi loolu nag yàlla moo ko xaasale seex Cheikh Modou Mountakha ndax noonu la ko xaasale sém bu mag wee ci Masaalikul Jinaan mu ubbi ci ay loxoom ah, ah, damay dégg nag muy wax ne ah, ah Cheikh Mamadou Basir moo ko waxoon ne ko Cheikhul Khadim ko am fulla la foo ko toll mu toll la fa waaye fi mu Sëñ Tuubaa ci la ko fayee sémb wii di jumaa ji ci poroxaan moom itam ubbi ko eh, ci la ko fayee tamit lii jëm ci dunduk door dunduk yokku daara yi maam jaara ji loolu itam suñu borom fayee ko ko ba ci yokk maanaam dëkkuwaay yi ñooñu alxuraan loolu itam suñu borom loolu la ko xaasalewaat ci dooley soxna jaara kon nag noo ngi siyaare waa àdduna bépp di di di ñaan nag ñu teewoo ko ay déwéni déwén di wax na nag suñu teewaay nun teewaaleel nañ fi képp koo xam ne rek dangay ngay ab jullit di taalibe euh, te te bëggoon a yéenee teew te teewoo teewaaleel nañ la fi fàttewuñ kenn nag ba ci suñu ñi nga xam ñu seq liggéeyu xidma ak ñëpp rek bu ma ko waxee tudd na ñëpp yàlla nañ ci daje ne barke waq daa waaye jële si na daamu fi xidmati wa ablahum maaraamu inna lisina saaran li xidmati wala mu diyaara wasal jannati seen mbokkum taalibi Assane Diop xidma Assane raa yow nga neel waa nga Tuuba sët ba yor na ko tey alaaji fal lii lu mooy xalifa billahi nuurun ala nuuri min nuurin yunawwiruna maam waaw bu soo ko jur mooy jaaratullahi nuurun ala nuuri min nuurin yunawwiruna maam waaw busoo ko jur mooy jaaratullaahi nday jaadi baayam ci seen askan baayam it di ndayam mu donn baatin ba ak zaahir sabillaahi ndaw leer ci kaw leer baleeru leeru soxna wa sosob ci leeri askanu sun maam jaaratullaahi leer gaa nga jollee bu soobee ñi nga xam ne moo leen yar ak képp ku namal liggéey Seexul Xadim ñoo daje fii léegi nag mu jox leen liggéey bi saytu ci di leen ko saytuloo wàllu siyaare bi wàllu yére yi teen ba appartement yi waaw ñi nga xam ne nag ñooy soxna yi di fi ñëw di indi seen i addiye seen siyaare ngir euh, sakku ci soxna si ngërëm ak xéewal ñoo fi ñëw di di indi yére yi yére yi ñu ko saytuloo gis nga seen oto baa ngi gis nga niñ ko def buñ ko joxee ñu nangu ko tak ko ay takk ba mu yegg dugal ko ci oto yi di ko yóbbu ci magasin ba saa yi nu ko saytoo ba noppi na ba maagal jàgg jàll ñu tëj magasin ba yor sëriñ Basiru Poroxaan mi nga xam ne moom sëriñ booreel euh, liggéey bi caabi moom sëñ Moustapha ñii ñi nga xam ne ñoo fi ñëw di siyaare itam di góor di jigéen di mag di ndaw ñëpp ñu leen di sensibiliser maam di leen teg ci yoon di leen dimbale di leen teete ba kenn ku ci nekk la nga bëgg nga mën koo am te doo am benn problème ndax fi ne euh, doomu moom bari na waaye bokkul waaye kenn ku ci ne su ak sa comportement sa melo boo fi ñëwee rek ñu xam ne ni ñuy def ba ànd ak ndax ku ñu yar moom mën ngaa jaxasoo ku ne bu ñëwee rek da nga mën a lenqeteeg moom ba teg ko ci yoon ba mën a siyaar ci barab bi mën a siyaare teen ba mën a dugg fu mu bëgg dugg te doo am benn jafe-jafe loolu nu fi sëriñ bi tegee ñu nekk ci loolu nag di góorgóor suñu képp laay kattan ndax ñu fi ne ñëpp seen i baay ak seen i maam dañoo ànd sëñ bi seen i baay jël leen jox leen sëriñ bi ñoom ñu mottali seen pas-pasu waajur ba ku ne sëriñ bi gërëm la soppi la sa liggéey ndax murid moom du wàcc waaye dañuy soppi sa liggéey yóbbu la beneen anam ngay liggéey kon loolu mooy soppi moo war a liggéey léegi nag ñooñu ñoo dajaloo waa def benn daayira mu kuréel bu mag jëbbal sëriñ bi seen bopp ne ko lool loo ñu diggale te ñu def ko loo ñu tere nga bàyyi comme ni ñu nekk woon ci daara ji boo amee lu muy liggéey loo woonoo su fekkee liggéeyloo wu ñu dellu ci yitte ak di dajale suñuy suñuy addiya di ko yóbbu kon ba tey loolu moom moo sabab lii kon defe naa ñi fi nekk moom war nañoo mën a jaxasoog doomu aadama ku mu mën a doon rek war nañoo mën a wax ak yow war nañoo mën a lengante yow ba la nga bëgg nga am ko te doo sonn doo mer doo am benn jafe-jafe kon daal loolu moom man dina xamal ne loolu moom moo fi nekk fi mu nekk moom. ci ci leen fas yéene wéy it di ñaanal sëriñ mu yàgg fi lool te wér ñun itam ñu yàgg fi moom te wér ak mboolem murid yi taalibe yi waaw di nekk sax ci liggéey Sëriñ Tuubaa rek sax ci njàngaleem Sëriñ Tuubaa ndigalu Sëriñ Tuubaa waaw ak wataraay ak roppalaan dana ñëw Tuubaa rek sab liggéey maam jaaratullahi robinet yi walangaan kër yëpp sa fi dër jën yaa ngi am daaru rahmaan jaaratullahi citerne yaa ngeeg teraawo yi di saf dexi ndar diggante mbàkkee ki tuubaa jaaratullahi diggante mbàkkee ki tuubaa jaaratullahi salaamaaleykum soxna si maaleykum salaam ñu fàttalee tur bi ak sant bi ñu gis sa teewaay ci dëkk bu sell bi di Poroxaan nga jëm si wutukaayu ndox bi muy teen bi lan moo waral sa teewaay si dëkk bi. xanaa ñëw siyaare Soxna Jaara rek maa ngi tudd Fatou Mbaye dëkk Touba siyaare Soxna Jaara bu sa borom Porokhane rek te teen bi dama bëgg dem te teen ba wut fulaat pour lu ma see lu ma bàkkeeroo. kañ ngeen kañ ngeen kañ ngeen ñëw si dëkk bi. ci guddi démb. démb si guddi mu mel ni gis nañu cofeel gi nga xam ne soxna yi am nañ ko ci soxna soosu. ndax euh, ñi ngi ñi ngi ñi ngi góorgóorlu di topp jikko ku tedd kooku di Soxna Jaara waaw ñi ngi di topp duñ ci man rek di ko def daal di ko góorgóorlu fii ak fi ñëw boo ñibbee di nga gën a toppaat yoon wi fàttali ñu tur bi ak sant bi ñu gis sa teewaay ci dëkk bi lan moo ko waral ndey xuma laa tudd ndëkk mbar ñëw fii ki dëkk maam Jaara Buso bi xanaa nag bëgg maam Jaara Buso bëgg sëñ Tuubaa ak Seex Ibra rek waaw màggal gi nag ñu xam ne jigéen a ko góor góorgóorlu rek fas yéene mel ni maam jaara bu sa wala boog ñu roy ko ba mel ni moom ndax dañ koo sopp lool fas yéene sax ci moom dak barke maam jaara bu sa jigéen ju nekk war a ma roy ci moom. macha allah kañ ngeen ñëw si bis bi màggal. waaw ñëw nañ démb ci ngoon lañ ñëw. mu mel ne comme ni ko waxee woon ni nga ko waxee léegi roy ci soxna jaara. mu mel ne jamono ji ñu toll jikko yi xaw naa doy waar lool est-ce que ndaw ñi ñu ngi jéem a adapté jikko yi soxna soosu di soxna Jaaratullaah. waaw loolu laa leen bëgg a wax damaa bëgg a wax ni leen man nga war ngeen bis bi ku ci ñëw nga war a mën a xool ci maam jaara bu baax a baax a baax a baax ndax maam jaara liggéey moo ko may lii mu am waaw kon kuy ndaw rek war ngaa mën a xool ci bis bi roy ci maam bu Buso ndax ñun ñëpp war nañ ko roy ndax moom liggéeyu ko may lii mu am. lan eh, lan moo la gën a neex ci soxna si soxna jaara. taalibe gi mu am taalibe gi mu am ak eh, xol bi mu am mu toj ci liggéey moo ma gën a neex ci soxna jaara man su ma sañoon soxna jaara ni mu meloon ma mel ko ndax man ku ŋàbbu téereb alxuraan rek sama xol day sedd te moom dafa bañoon ba yor ay daara moo tax mu am daara yi. man bu ma gisee xale bu ŋàbb euh, téere di ko jàng sax sama xel day dem ci soxna jaara te xam ne rek moo waral lii moo tax sama doom yi ma am yëpp su ma sañoon ñëpp jigéen la ñuy doon ma duppee leen soxna jaara. boobu cofeel màgg na jërëjëf yaa booy. ah Porokhane de xéewal Serigne jaara bu sa Porokhane moo ñu ko defal moo ñu yaatalal ñu ñëpp ba jigéen ñi yaatu lool ñuy sant rek di yàlla ñaan yàlla yokk leeram ci barkeem. maam jaara nag amuñu fayam maam jaara moom amuñu fayam jigéen ju mel ne moom ñi neexul a roy waaye nag lépp moo ñu ko defal rek sant sëñ baa rek nag sant di ñaan yàlla dolli xéewal gu baawaan saawaan xéewal gu soxna si gis nañu gis nañu jamono ji fi mu toll jikko yi xaw naa doy waar lool boo doon digle ci ñu war a roy soxna jaara lan gay digal sa doom yi nga xam ne ñoo ci ah góor góorgóorlu rek doon Baay Faal muritu Baay Faal waaw ah, doon góorgóorlu rek doon murit doon Baay Faal ah, topp sa ndigalu sëriñ ku bëgg a roy maam jaara moom di nga def ni mu doon def royukaay la xool ci moom roy ci moom rek moom la digal suñu njaboot gépp waaw ah, ndax moom kenn mënu koo roy dañuy jëm rek. salaamaaleykum soxna si ñu ngi lay nuyu bu baax bàyyi la nga nuyu ak mbokki téléspectateurs yi wax ñu sa tur ak lii waral teewaay bi si dëkk bu sell bi xanaa kontaan ci rek di ñëwee maam jaara ak waa këram teewaay bi rafet na sama xol dafa sedd nag moo tax mënu maa wax. asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu bu baax a baax soxna si di la siyaare bàyyi la nga wax ñu sa tur ak sa sant ak li waral sa teewaay ci dëkk bi tey di Porokhane. maaleykum salaam maa leen nuyu di leen siyaare yéen tamit di leen jox seen waajuwaay. bés bi lu ma fi indi woon mooy man soxna jaara laa tudd soxna jaara cuun maa ñu woon Porokhane nag pour ziar sama turandoo. macha allah mu mel ne ñu tuddee la soxna su sell soosu di soxna jaara tullaa lan moo la gën a neex si ci sa jëmmi turandoo ji. li ma gën a neex ci moom loolu yëpp moom bari na wax yàlla di ñaan yàlla kay mu may ñoo ñoo roy ko. ñu roy ko ba jéem a mel na moom daal loolu la ñuy ñaan yàlla daal mu defal ñu ko. ma ngi digal mbokki soxna yi ci ñu jéem a adapté jikko yi ku tedd ko. xanaa li ma leen digal ñoom ñëpp ñu jëm koo roy yombul nag moom ndax def lu baax yombul mais nag roy ko tamit ba mel ni moom yombul mais ñu do jéem a dox ci ay tànkam daal loolu buñ ko defee yàlla mën nañ cee jàppale alal muxtaari lillahi maam samba jaara nee na mam samba jaara mbay neena min alamaaraati kawnul ummi aabidatan mutixatan rabba fawqa almutiaati min alamaaraati kawnul ummi aabidatan mutixatan rabba fawqa almutiaati mutixatu rabba walwalidayni la li kawniha fawqa jaaratin wa jaaratin qad ahsanat gannaaw boo ñu waxee sa tur ak sa sant ñu gis la tey dëkk bu sell bi di Porokhane lan moo waral teewaay bi si soxna si. li waral si soxna si mooy nu bëgg ko ba mu jeex man sama taaw nu ko tuddee Lamp Fall ki ci topp Serigne ki ci maam jaara mi waral bis bi li tax mënta at mu jot day tombeek muy jàng ci compo kon yàlla naka turandoom wàllu waaye mi maam jaara dama koo bëgg ba mënuma ko fay kon soxna si li mu am yàlla nu ko yàlla yokkal te ñun ñi yàlla tax nu si barkeem te nu yàgg fee ñëw di ko teewe mu jot bu nu ñëwee day gën a yokk te yéen da jëm kanam soxna Jaara yàlla ko yàlla fayal boppam ak sëñ Touba ak maam Seeraay ma Faal ak sëñ Cheikh Fall ma war muy suñu sëriñ yàlla na nu yàlla fay. Ah, mu mel ne soxna si gis nañu lu rëy li mu am nga xam ne mel moom dong moo ko am li ko ko may nag muy jikko ju rafet ak liggéey bu mag lan ngay dénk mbokki soxna yi nga xam ne ñoo ci toll ñu mën koo royee soxna Jaaratulla xanaa nu ko séenee jéem manu man du nu mënul lépp tamit nu ko séenee jéem ba lu mel ni moom yàlla may nu nu man man la mel ni moom ndax kenn ku nekk rek booy ñëw fi wan ngaa fa séenee mel ni soxna si ndax soxna si li mu liggéey moo ko may lii kon nag comme que li mu liggéey moo ko may li ñun tamit nanu jéem ba yàlla may nu lu mel nii xam naa man mënuñu koo am waaye nu jéem rek waaw. lan moo la gën a neex si soxna jaar li ma gën a neex ci soxna jaar sàkket bi mu tëye taw bi taw ci kawam xam nga sunu kalaas gi ku nu waxoon ne téye leen ma sàkket danga naa man duma fanaan ci taw bi. waaye ko soxna jaara li mu nangul maam moor ya ak sëñ Touba ba am si sëñ Touba yàlla na ko yàlla fay loolu rek na ñaan ñun ñu nga jógee ba Kër Moussa ay soxna jaaratulaay ñoo ko bëgg sunu xol bi man lu ma def si maam jaara nday faama ju dëkk Kër Moussa bismillahi rahmani rahim wa wa ala wa sahbihi wa sallama tasliman man sant lillahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi bismillaahi ma jóg man sant lillaahi sangub jigéen ñi ci dun yaa jaaratullaahi ngir ñëpp ñëpp ko gàddul cant war di ko way booleeg siyaare kaña nal jaaratullaahi budul ko nag sunu maryaama jaaratuna kon ñëpp jaari jahim tey jaaratullahi salaamaaleykum sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ginnaaw boo ñu xamalee sa tur ak sa sant ñu fekk la fii si dëkk bu sell bi di Poroxaan waaye itam si teen bi mu mel ne bokk ngeen si ñiy saytu liggéey bu am solo bi nga xam ne moo fi am naka euh, la liggéey bi di demee ak euh, organisation boobu noonu ginnaaw boo ñu xamalee sa tur ak sa sant. maaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen ko delloo. di leen dalal ci barabu barke wax ni taxa gi nekk Touba Darou Tanzil daari Cheikh Muntaxaa comme ni ñu ko waxee léegi rek liggéey bi nga xam ne yéen a ngi amal fii si teen bi nga xam ne daanaka li ëpp si mbooloo mi màggal si dañ fi ñëw di wut ci ndox mi organisation bi tam day mel ne yomb na yombul naka lay demee. waaw teen bi de ndax day mel ni ku ñëw baraxaan da ngay yónnee am ndox moo xam ne moom nga yóbbu ak sant yàlla ndax barkeelu la organisation bi de mën naa yomb mën naa ñàkk yomb ndax tey nii. day ne rek mbooloo bu xasee ba ñëw te bokkuñu ay xeetu def ak kenn nekk ak jikkoom waaye nag yàlla defal na tawféex yi ñi nga xam ne ñoom ñoo yor liggéey bi miin nañ ko ba seen xol ban na ko attan daal kenn nekk jikko joo fenn rek mën nañ ko tolloore ak yow ba ñu ko bëggee incha allah incha allah am na solo lool c'est bon ah? baax na